jox yoon lii mooy Médine. dem leen ñibbi seen dem ñibbi fi ngeen dëkk dafa a sori waa Pikine. muy noonu supporter yi jaraaf ñooy loolu waa Pikine waaye ba léegi bàyyeekuñu les joueurs de l'AS Pikine n'ont pas dit leur dernier mot Babacar Ndiaye la surface et l'arbitre qui siffle un penalty pour l'AS Pikine à la dernière AS Pikine qui obtient un penalty faute commise par léegi bàyyeekuñu les joueurs de l'AS Pikine n'ont pas dit leur dernier mot Babacar Ndiaye qui entre dans la surface